waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokku jullit yi mbokku taalibe yi seen xarit seen soppe Moustapha Rassoul moo leen di nuyu di leen ziar ah, fii nag ci site bu mag bi nga xam ne mooy fkr 92 point com ah ci émission bi nga xam ni mooy émission bi at yëpp bëgg mbokk internet yëpp bëgg ko muy ma way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la du keneen sit na ba seet xool na ba xool moom la du keneen muhammadu rasulullah waay xool ba xool sit ba seet sama bët bi juxuma keneen ku dul rasulullah sit na ba seen xool naa ba xool sama bët yi gisul keneen ku dul rasulullah bu du woon ak moom ay bu du woon ak Seydina Muhammad du sàkku àddina du sàkku asamaan du sàkku suuf dara du am alabanena حيث واستمي ذكر من أنوار لمعات في الكائنات كشمس في السماء طلعان واسقي لمن النبي جل خالقه واي لولا أما budul woon ak yoneen lawla uma o budul woon ak seydina muhammad duñu lekk duñu naan kenn duñu xam bu du woon ak moom dunu rukkoo bay sujjoot seydina muhammad lawlaawu ma kaanal mulku laay multaziman duniya wuxura bi kullu loqadif tutixat xat kaana nuuran wala la uxul wala qalamun wala samawaaun bi illaa waqat rufian seet na ba seet FKR 92 point com wër naa di xool man gisuma keneen ku dul Rasulullaay seet naa ba seet xoolaa ba xool sama bët yi dajule leen ku dul rasulullaay ku fi baax ci réew mi baa nga ami mbooloo baa ñu di la way nga kiite xel jaam Seydina Muhammad déggal Cheikh Sadou Labi wullu shi mummit fa adal jag maamin taalibal xayaar maami cheikh adrame cheikh siidi buya man daan woowe cheikh al xalifa cheikh na cheikh saat bu neena sama maam sayidina muhammad taarifoo taarifoo daabu ina yarkabu taati ilay zalatan la taxrabo cheikh na cheikh saat bu neena jullusoo yaxlu jullusu jallasa waaw waaw sala al ilaahu sabxan wa masaba waaye lu cheikh na cheikh saat bu wax dëggal sëñ bamba xaadimul xadim baye ba sag baara dëggal na lool góor taw loo mustawa cat loo muttada ram loo doomi soxna yi bàyyi sëriñ saaliw bàyyi sëriñ Falilu wa kilimaami Cheikh Sidil Muxtaar mi ñuy jooy te noppeegun sëñ Bàmba leena su ngeen ko bëggee xam rasulullaay mooy huwa nabiyu huwa rasul wal xaliil wa huwa wa daliil baa awul badiilu min xayri jamaal وسنوا الأدوس من أي كمال كون نبيل منتهى محمد خير الورى مختار عند سمدين ويل بامباخ ديغل غورغي جي سيتيم غار بكري غرب مان aram loo maam kumba caam bugguma penda paate penda xar yàlla bopp coor def li nii ñu magal bàyyi sëriñ Babacar ndar-ndar bi alaaji Maalik nee na kii may wooye seydina muhammad ca leer galaa yi di wax mawda nee na wa innahu is araada allah nashatana abaana min nuuri nuuru min al alami waaye mawda wax dégg leen Seydi Barhama ñas kumba Abdallahi maami Munziru Barhama dëggal na lool Barhama nee ne kii muy su ngeen ko xamul mooy Muhammadul Mustafa awlaaw mawlaaw kullal xataaya wa adnaa waalaaw awa usma hada astada nafa un laayi nay la ay gaa ñi guddi ñu woy rasulullahi waaye lu Seydi Baxaama wax diggal mam ni maamu góor gi ci oof maami Useynu laay maami Ibu Siini Cew laay ne ne aji boo ñëw leen daaya laay yaa maxcharal jinni wal insi inni rasulullaay bàyyi laaya waxoon lool waaye diggal borom Njaasaan maami Cheikh cheikh bu xalifa kunta samaam nee na rasulullahi sallallahu tasliman abada wa ala yasin sayyidil karami wa azwaajil umunna tayyibina tahirin waaye déggal mam rawaan rawaan awa jeey borom ñetti jumaay mam rawaan nee na su ngeen ko seydina muhammad mooy marhaban yaa marhaban mam rawaan nee na marhaban jadal useyni marhaban waaye diggul guur ci kasoor eh alaaji medul mi ñuy jooy te noppee guñu ah islamologue wel ah pharmacien bu mag bi way na soppeem ba seydina muhammad alaaji medul nee na sa di julli ci alaaji medu nee na ku julli ci moom benn yàlla julli ci yow fukk nga julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer nga julli ci moom téeméer ñu faf lay baal say bàkkaar ñu ni ko alaaji medu bindal mu ni wasalli ali wa ali kiraami ma taslimi rabbi lakal hadda ñu joobe rasulullahi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun jàmm wasalaamun mucc wasalaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin sallallahu alayhi wa sallam xayrul anbiyaa wa ilayhi sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu ويلي